الحمد لله الكريم سلمنا على استفاد بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساهني لوطني به نفى ما أنفني وهذا لي السلام عليكم ورحمة الله mbokk yi ñu del sawaat ci 2422 toll ci eh, fanweeri fan nag ci weeru safar wala tàmbali gàmmu suba ci xibaar yi nga xam ni jot nañ ko bu fekkee am na yeneen xibaar muy noonu day mel ni kon eh, léegi nag gàmmu la eh, dugg nañ ci safar def suñu safar yaatu waajal ko ñun jullit yi ñenn ci mbokki xaadir yi ñeenti ci mbokki tiijaan yi ñenn ci mbokki laayeen yi ñenn ci mbokki ibaadu rahmaan yi eh, ñëpp ñëw nañ fa ñu gis leen fa wax dëgg yàlla eh, loolu nag na yàlla def nu fekkwaat ko ay déwén yu bari loolu lépp ñu def nag kooko nee na surgab liggéeykatu yonent bii mu doon liggéeyal ñuy dugg weeram nag ah war na noo jéem a sellal suñu yéene bin yàlla fekk loo ndoorteel weer wi kon suba lay doon benn pan alxamis incha allah du ko defeet eh, nu xam ni eh, gàmmu moom it lañ doon wax ci màggal yàlla mi def senegal lislaam jëkk fee dugg jeneen diine judul lislaam ba lislaam mel fi nii fi mel nii nga xam ni eh, néew na réew yoo xam ne lislaam noonu la fay tëdde dafa nekk ci ay yoxo am ay njiit loolu yàlla moo nu ko defal donte doonte bu nu mu defal nu lu ko gën a xewle mooy ñi dem ba njiit yooyu ah, farmi benn liiñ na boo xam ni ñoo yor seen kàddu ah, di wax ci seen kàddu di recevoir ñi nga xam ni ñooy jóge bitim réew recevoir politiciens yi di wax ak ñoom di euh, xeexal diine dana toll jamono joo xam ni nit laaj ay droit am mënatu la ñàkk léegi nit laaj ay xàqam yoo xam ni yii euh, dañ ko ko ameel islam ay droit yi mu ko xaj Sénégal dafa bari bu diine diine ji nag nekkoon benn baat bu mel noonu nga xam ni ñooñu tey jii buñ doon def ay euh, wote yi yoo xam ne dañuy tànni député xam ngeen ni kilifa yi bu boobaa bu ñu tànnee seen ndawi bopp fokk ñu am benn groupe parlementaire ca assemblée waaw fokk mu doon benn benn benn benn benn benn benn euh, côte la bu bu am solo lay doon bu boobaa walla ñu euh, euh, defe ko sax beneen fànn bu bokk boobu nga xam ni Sénégal daal kàddu gi am na fu mu tënk xëy bu ñu waxee majorité diine bi ñu ne ci te xëy yëpp yëpp ñoo wax yàlla mën naa dem nu dem ba àgg ca ndax màggal gii nit ki al oustaz Ismaïla Ndiaye waxee bi mu demee ba ñëw am ay mbokk yoo xam ni dañoo bokk ci wahabiye yi di wooyee seen bopp ay salafiya dal ci kawam te moom mu bokk ci euh, ligue des imams bi imam lay bi jiite ñu koy euh, xaxar nag di ko wax ba mu àgg ci moom naa ko yow lu tax ngay dem màggal Tuubaa yow dem di fekk ji biddaa ak yu mel noonu mu def waxtaan bu am solo bu ñëpp war a jot diglu ko bu baax delloo siwaat leen wax ak ñoom ci xam-xam jox leen ñoomit loo xëy buñ ca tontoo rek ci yi ñuy def ñoom nga xam ni at mu ne ñoom seen daara ya daal di woote rey ay nag to di ceeb euh, ni xale yi lañuy tari te loolu yonent bi daawu ko def ak yu bari yu mu leen wax yoo xam ne ñi ngi koy def kon day mel ne daa mi xëy dañuy tardeel nag dañuy tardeel dañuy kon gàmmu dëgg-dëgg nag mooy euh, durant année bi yëpp yëpp mois yëpp guddi gune ne rek bëccëg bu ne na doon gàmmu ci yow ndax lan mooy yonent bi alayhi salaam da la tracel ni nga war a dunde lu ci nekk laaj nañ ko ci mu wax ca am na benn téere bu tudd arasulu yasalu wa saxaabi yu jiibu ak asaxaabi yasalu wa nabiyu yu euh, mu ni yonent bi day laaj saaba yi tontu beneen bi mu ni saaba yi dañuy laaj yonent bi tontu saaba yi nag saa ñuy laaj dañoo bëgg xam yonent bi saa yuy laaj daa bëgg a xamle ndax bu laajee saaba ñun ko ah, loolu day xamuñ ci dara yàllaa ko bi yonent bi ñoo ko xam mu daal leen di loolu mooy nangam ak nangam loolu mooy ab laajam gis nga ñu kon mbir yi ku la ku la gën fonk eh, sunna te sunna ngir nga fonk ko nag da ngay jàng yonent bi alayhi salaam cay mbokk yi ak loo mën a jàng version yëpp am na ak dundam waaye nga xool yi ci gën a wér nga jàng ak dundam di nga soppeeku balaa yàgg ndax amul lum la jàngalul na nga koy defee ni ngay ànd ak nit ñi sa diggante ak ak eh, environnement bi sa diggante ak alaxira noo koy waajale yu noppale yoo xam ne yiñ jël jëlal ko suñu bopp di ko teg suñu bopp di ko jaamoo yàllaay ci turu diine waaye moom mu teg la ci yoon woo xam ni yàlla mi la sàkk moo la ci teg ndax yàlla xam li nga àttan mu teg la ko yàlla lii munu teg rek ci boo amee eh, boo amee ñaar téeméer yoo denc ci weeru gàmmu wii ba weeru gàmmu wi delsi waaye waaye joxe ci juróomi dërëm muy asaka xool loolu mu tuutee rek te am na ñoo xam dañu koo lànk xoolal rek ñeen euh, ñaar fukki waxtu ak ñeent yi am yàlla lim la ci sant nga def ko li ñuy wax julli am na ñoo xam seen juróomi julli yëpp yëpp boo ko boolee matul ñaar fukki minutes matul ñaar fukki parce que ay deux minutes trois minutes ci li ñuy julli ndéem sax dana la ko mat waaw xool aj màkk gii nee na même boo ko mënul wàcc na la asaka bii soo dajalewul lim boobu mu wax ba weer wi del si wàcc na la ah woyefal ko toy toy toy te loo ci def da koy ful bu la koy bindal ah indi nag istixfaar mooy tuub ak jégglu ni du du passé fekk nit ki ruug gi génnagul xam nga ruu buy génn ci cati baaraam yi lay génne ñëw ba ci wóom yi ndigg li biir bi dënn bi loos wi ba génn boo yëgal ni yaa ngi ruu mi ngi génn sax ci cati baaraam yi sax commencé foofu réccul tuubal weesugul kon yàlla suñu borom moom gàcc nga la maa moom salaam fam benn bis ah, mu war menn mbaaba mu ñu wax ufayr eh, togg ca Euh, Muaz moom nag dafa woyofoon lool am na kenn ci saaba yi mooy nettali benn bis alayhi salaam da ko ni yow ma togg li sama mbaam mi nee na ma yéeg ñu ànd daanu ma rus lool ma yéegaatal nee na ma yéeg ñu àndaat daanu xoolal loolu rek ala kulli haal woyof googu nekkan ci moom nag bi mu toggee maas ci mbaam moom moom mu ñuy wax Ufayri dafa laaj Muaas ni ko laaj boo xam ni booba dafa bëgg a jàngale lu mu ko wax yaa Muaas hal tadri ma xaqullahi ala al-ibaadi wa ma aqul ibaadi qultu allah wa rasuluhu aalam waaw Muaas ndax xam nga eh, lan mooy àq yàlla ci jaam ñi ak lan mooy àq jaam ñi ca yàlla ci waxe ci waxin rek mooy yàlla lan la ameel jaam ñi ak lan la ko jaam ñi ameel ma ni ko loolu day yàllaa ko yonenteem dong ñoo ko xam mu ni ko fa in aqallah ala al ibadi an yabudu laaha wala yusriku bi shay'an wa aqul ibadi ala allahi asa wa jalla ala yuasiba man la yusriku bi shay'an xam nga lan mooy aqu jaam ñi ci yàlla liñ ameel yàlla ah, mu ni ko mooy lan mu ni ko nañ ko jaamu daal te buñ ko bokkaale ci moom dara dara dara nag lépp ngi ci biir bindee fa ngi ci xeer ngi ci am ñu jaamu xeer jaamu jant ñu jaamu nag nee na am na ñuy jaamu alal nee na déedéet wa aqul ibaad alallaahi nag eh, àq ji xam ni mën nga ni kon yàlla moo koy gàddul nit ñi mooy alaa yuaziba man laa yusrik bihi shay'an mooy yàlla du mbugal ku ko bokkaalewul ci dara dara yooyu ngay jéem a xam yooyu yooyu mooy dëgg dëgg dëgg gàmm wax ni euh, léegi nag bi mu waxee maas nee na ma ne ko ah, yaa rasulullah afalaa ubashiru naasa xaala tabshirhum eh, fa yatakallu nee na ma ni ko ndax mën naa koo xibaar nit ñi ndax mën naa leen a bëggal ci loolu alayhi salaam kon daal dinay leeral ak ci jaam ñi dëgg-dëgg mooy ñu wéetal yàlla ci seen lameñ waaye wéetal ko ci seen xol dëgg-dëgg loolu loolu foofu la war a féete yàlla ci li dox diggante jaam bi ak boromam dox diggante yàlla ak jaam bi mooy kon yàlla du ko mis du ko du ko du ko isaab ndax bokkaaliwul yàlla ak lenn ak dara loolu kon teraanga ju rëy la joo xam ni jaam bi da ko war a xam jaam bi da ko war a xam moo tax eh, aleyhi salaatu wasalaam Buxaari yi ngi nettali ak muslim ci abdullahi ibnu amar radiallahu taala anhuma mu wax ni yonent bi nee na ala uxbiruka ala uxbiru wala boog alam uxbir innaka taquumu layla wa tasuumu nahaara ah yow day eh, nee nañ ma da ngay jóg guddi di woor bëccëg rek maa ab sufiyanke la woor guddi woor bëccëg guddi ngay naafila rek léegi na yonte bi da koy bëgg noppal teg ko ci aw yoon gis nga bi koy laaj mun ka mun ko waaw ini afal saali ko man de noonu laay def te bëccëg bu ne damay woor rek guddi gi damay naafi la mun ko boo defee loolu day ah, xajamta aynik wa tafata nafsaka te way na li nafsika xaqun wali ahlika aqun kon famsun fasum waftur waxum wanim lii boo defee loolu day sonal nga sa gët yi ak sa bakkan bii te daa am àq ci yow sa say ñooñ am nañ ak ci yow fasum kon del woor waftir léeg-léeg nga bañ a woor waxum léeg-léeg nga naafi la wanim te ngay nelaw gis nga nim ko recadré ñi ñuy bëgg rek sunna sunna sunna sunna dafa ne sunna forme la booy seen ci nit ki buy ñëw nga xam ne kii nit sunna la ndax am na sikkim euh, tubéy ji gàtt na wala buy julli teg na ñaari loxo yi ci dënd bi kese kese loolu mooy sunna subhanallah déedéet mbokk yi loolu sunna yi ay junni junni junni sunna la yow mën naa fukk rek nga ci def kii kii nga xam ne def na ci lu mat ay téeméeri téeméeri sunna nag léegi di ko dunde gën laa tabe fopp gën laa jàpp laa mañam ci jullit ñi gën laa amal jullit ñi njariñ gën laa dund lislaam dëgg-dëgg piir et dire kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax nekk kon daal jaam bi yonente bi ni mu jàngalee dañoo bëgg mu doon ku koo xam ni day day day am day am équilibre nga am ngay soxna kon booy naafi la guddi gu ne woor bëccëg bi seen àq fan lañ koy jote sa yaram it mun ko am na ci yow àq gis nga ko kon guddi gi del naafi lii di nelaw lii gis nga ko jàngalekat bu mag boobu moom ah noonu la meloon benn bis waxal na ni Buxaari yi nettali ko muy Abdullah ibnu Mas'ud neen dañoo ànd ak alayhi salaatu wasalaam ci xubba mu ne atarduuna an takunu rubaa ahlil janna waaw ndax ngeen ngeen nekk kaaru waa aljana ma ne ko waaw maanaam yéen jullit yi mu ne atardawna an takunu sulus ahlul janna kaar mooy bu ñu xaajalee ñuy dugg àjjana ñeenteelu xaaj bi jullit yi doon ko ko waaw mu ne ndax bëgg ngeen ngeen lekk ñetteelu xaaj ba mu ne ko ndax bëgg ngeen ngeen nekk benn xaaj bi sax faf buñ ko xaajee ci digg bi benn xaaj bi nee na ma ne ko waaw mu ni giñ naa ci ki nga xam ni moo yor sama bakkan te mooy yàlla yaakaar naa ngeen doon genn walla ñuy dugg àjjana ndax xam nga na boroom xam-xam yi dañuy wax ni yonte bi buy wax ni wa ma antum fi ahli shirki ila ka shicrati albayda fi jildi thuuri aswad aw ka shicrati al fi jildi thuuri al ahmar kon ñi ñi nga xam ni ñooy musrikoon yi dañuy ëpp mu'minoon yi bu boobaa yonte bi nee ni ngeen di mel bu boobaa ci biir ñi ngi xëy duñu jullit day mel ni kawar yu weex yu nekk ci benn benn kawar gu weex ku nekk ci nag wu ñuul noonu ñi gëm yàlla di tuutee bu boobaa kon kay bu ngeen loolee nisful jànna jullit yëpp yëpp yëpp kon dañuy ah, ah, ah, dañuy dugal jëla kon fexe ba bokk ci nag te nang nga cey bokkee mooy nga tënku nag nga tënku ci jàngale yonent bi alayhi salaam li la ci mag ñi indil li nga xëy jot nga ko ci ndax jamono jii ki jàngul ba mën a liirit moom mi ngi dégg jikkoy yonente bi alayhi salaam wasalaam ñu koy dégg de laa nga bëgg a dégg wax nañ ko ci mu ngi ci internet bi mbokk yi rajo yaa ngi koy wax tele yaa ngi koy wax téere yaa ngi fi kon lay amatul yonte bi yàlla biru ko def ko jinne joo xam ni moom euh, malaayika la ba kenn mënu koo roy axakay ah, mas na jéem a roy nam meloon lam doon def nag yàlla jox nga ko ci kàttan yow mëne woo ko noonu waaye lim digle moom loola lu ñu mën a jéem a jëfandikoo la nu yem foofu incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu alhamdulillahi alkarimi silmilan ala sihadi bi furudin wa sunan سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني wa